mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu si di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ak programme yu 5 TV ma ñëw ak yéen nag fas yéene leen defal décortique benn série bu bees bu waa maro Marodi TV di emprise tey nag ñu door ko ak épisode bu njëkk bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni nag polygamie nekk na loo xam ni rek lu ñu fësal la ci série bi waaye nag li ñu ci wane rek mooy góor fu mu amee jàmm rek foofu rek lay daal di nekk. ndax euh, lu jàmm jàmm moom moo ko gën parce que d'habitude li ñu gis ci euh, famille polygame yi euh, werante xuloo xiiroo ŋaayoo da ciy bari ba tax nag góor bi nga xam ni moom moo dajale ay soxnaam ki nga xam ni moom moo ko ëppal jàmm rek ci moom lay bëgg a féete mu mel ni nag du yomb benn yoon ci Mansour ak ay jabaram ndax jabaram bi nga xam ni moo di Kiné dafa ñëw fekk ci Uli daal di koy tëkku affronté ko muy loo xam ni kon bu fekkee coow la daw ci kër beneen kër nek rek soxna ya dinañ ko fa fekk ba tax na nag polygamie war nañ xolaat bu baaxa baax niñ koy doxale ndax yaakar na rek même bu fekkee da nga am euh, soxna bo xamni mo gëna ndaw euh, ci say soxna waro nak jël kenn di ko ci euh, keneen ki ba tax nak ñom ñepp nga wara a su fekke nak bëgg nga jàmm mu melni ni kon sénégalais yi dañ ko bëgg mais nak xamuñu bu baaxa baax lan mo nekk ci biir ndax dajale ay jigéen dafa metti ndax benn jigéen rek dëkk ak mom yombul waxantuma la nak nga dajale ay jigéen ku ci nekk ak rumeur am ku ci nekk ak jikkoom muy loo xam ni yombul gérer benn yoon ñu jàll ci euh, tonton Willy euh, moom nag gannaaw bi nga xamee ni ay employé woom euh, liggéey nañu ñafe ba seen entreprise daal di ñu koy ràññee lool ci dëkk bi loolu nag tax na nag mu ñëw di leen gën a encouragé comme li ñuy wax rek fas lu mu daw daw du tee nga làbbali ko ndax tey tax rek mu gën a jëm ca kanam loolu nag tax na mu ñëw di leen yokk rek di leen ñaax ndax noonu rek yaakaar naa la Pape Demba nag mi nga xam ni euh, bi nga xam ni jarbaatam la euh, denk na ko responsabilité maanaam defal na ko promotion loolu nag li muy wane rek mooy nit fépp foo nekk rek war ngaa góorgóorlu itam sa kéem kàttan ndax bu ay avantage ñëwee rek nga mën cee euh, bokk waaye ki nga xam ni moo di Pape Demba moom nekk na koo xam ni doom yaay la maanaam ku bëgg yaayam parce que malgré li nga xam ni moom lañ ko defal muy promotion bi ak fête bi nga xam ni fa la ñu war a dem terewul moom xelam yépp nu muy def ba bégal yaayam moom moo ci nekk doom nag yaakaar naa su fekkee jigéen ni que sa àdduna yëpp lenn rek moo la yitteel te mooy nooy def ba bigal say waajur rawatina sa yaay kooku yaakaar naa si kanam rek la jëm te nag dara du ko mën a gàllankoor ci àddunaam eh, kon rôlu Pape Demba nar naa nekk loo xam ne lu am solo la eh, te nag royukaay lay doon ci eh, série bi ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Rama mi nga xam ni mooy yaayu Pape Demba nekk yaayi Uli nekk yaayi tamit ki nga xam ni moo di Marie Thérèse nekk na ko xam ni ay doomam bëgg nañu ko trop dafa am lum ko xamal wala lo xamni eh, en bu mu am ci mom la ndax eh, ki nga xamni modi pap di ak Uli mbëggeel bi ñuy won seen yaay mom Marie therese fekku ko ca eh, ndax gis nañu ni bu nekk ci kër gi day fas mom rek du wax ak kenn wul kenn mu melni ni ñom xalé yi fête des mères bi gàcce nañu seen yaay ndax ku nekk ak sa cadeau te cadeau bu ci nekk nak bu am valeur la waye cadeau Marie Louise moko énervé ndax cadeau bi photo de famille la te seen papa daf ci nekk mu melni ni kon rama mom bëggul ben yoon ay domam di xalaat seen seen papa wala nag di wax ci seen papa loolu nag jalousie lay nirool euh, ndax rek am na waajur yoo xam ne noonu la ñu mel ku ci nekk da ngay bëgg a ci jëmale sa bopp rawatina nag moom mi nga xam ni Rama moo yor ay doomam bi ñu nekkee xale euh, def si ñoom lu nekk ba tey jii ñu daal euh, réussir waaye yaakaar naa yaay bu baax du doxalee noonu ndax papa ak nu mu mënti mel waajur waajur la rek te nag ku jur say doom waroo nekk nag di bëgg ñu lay gën a teg ci kaw bàyyi seen papa ndax yéen ñaa ñëpp ay waajur ngeen mu mel ni kon Rama digganteem ak borom këram boobu am na lu ci nekk loo xam ni xëy na bu ñu toppee série bi ci kanam nañ ko gën a comprendre ñu jàll ci beneen séquence Marie Thérèse nag comme li ñu waxoon sànq rek moom dafa mel ni su génnee euh, kër gi ci lay gën a rek daal di euh, fri euh, maanaam bu nekkee ci kër gi day noppi du wax ak kenn du kaf du waaye gis nañu ko ci soirée bi nga xam ni dem na fa xaw naa au moins daal di fréeku di ree di waxtaan mu mel ni nag artiste bi nga xam ni moo di dagoo dafa bëgg rek daal di draguer Marie Thérèse moomu waaye nag doomam eh, di Kaja moom dafa eh, fiir ci loolu eh, mu mel ni mooy doom yooyu nga xam ni rek dañuy doom yu jigéen yi nga xam ni dañuy fiire seen parent yi ndax jàpp nañu ni rek bépp jigéen bu ñu nekkal bëgguñu ko waaye dañ koo bëgg a yàqal ñu jeexal ak séquence bu mujj bi ñu gis ni ñoom jabaru Mansour yi Fatou Rabi ak Kiné ñoom ñëpp nag dañoo mànkoo bëgg rek dal di jële uli ci sëy bi ñoom ñu daal di des ak seen jëkkër mu mel ni kon ñoom ñëpp uli la xeex jamono fan la ñuy jaar ba daal di koy séparé ak Mansour mooy seen euh, jëkkër waaye Uli heureusement ba am na yaay joo xam ni yaay ju mat yaay la te mooy ki nga xam ni moo di Rama ndax moom mi ngi koy conseiller bu baax a baax nan la mën a def ba daal di gën a dëgëral sëyam euh, ndax yaayam moo ko ëpp expérience yi àdduna gën koo xam aduna xam bu baax a baax famille polygamie ba tax nag mu daal di koy euh, xelal xamal ko li nga xam ni moom la war a def ngir nag téye sëyam mu mel ni comme li ñuy wax am ndam euh, ndaxte ki nga xam ni moo di yaayam euh, mooy taxaw temm ci kanamam euh, mat mat ko kanam mat ko ginnaaw di ko aar bu baax a baax ba nga xam ni kenn du ko mën a bëmax mu mel ni kon nar naa métti si diggante jabaru Mansour yooyu a ki nga xam ni moo di uli di quatrième femme bi kon mbokk internet yi ñu topp leen si yeneen épisodes yi waaye laata boobu woye leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte nag ba si de notification bi pour ngeen di jot vidéo yi ci saa si jëf